waaye li ñu bëggoon wax rek mooy nit ki avant tout dañoo war a xool ndax il est apte ndax apte na bu ko la sa affaire jikko yooyu moom est la c'est la base c'est la moindre des choses jikko bi waxin bi udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati l xasana wooteel ci sa yoonu boroom waaye ci sagesse ak ak ak bienveillance mooy woote bu rafet woote bu boo xamante ni lii kenn du la ci xeet ci côté jikko mu ne ko walaw kunta faddan galida alqalbi lam faddu min xawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fi l amr fa ida azamta fatawakkal ala allah yàlla na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne da ngaa nekk ku xat ku mën a fayantoo kon kenn du kenn du duñ la wër day fekk ne xat nga ci ñoom ba ñu dem bàyyi waaye nag na nga leen jéggal na nga leen jéllal te na nga diisoog ñoom ci mbir yi diine tamit noonu la dafa am koo xamante ni kii usul yi la kii balaaga yi la की mantuk ले जाएंगे की तफसर la जाएंगे की हदीस ले जाएंगे की मुस्तला ilmul hadis le jàng kii ku ci nekk li nga jàng donc nit ki mënul ñëw tamit bañ a def déjà taxassus ci benn fànn ba pare bëgg ne moo ci raw ñëpp te kenn du ko ci gàggan ça c'est pas possible aussi mënoo nekk ku def taxassus ci mbooleemi fànn yi mun nekk ni ngay ñëwee ci tariqa par exemple nga nga gis ay ijaza xam ne dañuy jox ijaza luy luy montré que ne diw am droit wu def nangam islam tamit la même chose ممكن القران لا لاي جوخ اجازه قرانيه جو إيه؟ خامنا آه، كي واتنا القران مي تاي جي ني بري صاح مونو نيو كومبران دو ممكن القران نون كاتاري اكي كو ممكن نكا دون مونو نيو ديف ديفيرانس انتر كي ميتريزي القران باغا خامتاني اي بو بوغ اندي داف كوي اندي فاسيلمان اكي ديك القران بوكو نيت كي مونا مونا فيك مونو لا جوخ بن اي mais fekk lim lay wax yëpp alquran la lim lay wax yëpp hadis la kooku borom xam-xam la mais maitriser wul ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp na. alhamdulillah walhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dawi lfadli waljah ilahi la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكو جولتي كاين ني سي بوت شين دا نان فاي بو نيغي لين دي نويو دي نيواتا كاين سي بن بوين بو غات بو خامني بوكو دي صاح امانا فيديو بي فاس سان دي دي واخ ريك سي ميلو ووتي كات جيم سي يالا ووتي كات جيم سي دين الاسلام نان لا ورا ميلو اك جامونو بي جو نيك ني nit ñi nan lañu war a xoolee boo xamante ni moom nga xam ne moom mooy li gën a rëy ci mboolem am-am bu ñu mën ci am ndax nit ki lu mu mënti am bu ñàkkee diine perte na ndax bu dee perte na lu mu mënti ñàkk itam bu amee diine gagné na ak lu mu mënti ñàkk euh, avant tout nañu wax ne jamono bi ñu nekk ni jamonoy technologie la fii nit ki lépp lu mu la mënti wax ci diine mën nga am noo ko recherché nu yomb moo xam dégg nga arab wala déggu arab même bu dee ci langue bu mu mënti bu firi nañ ko ci lu ëpp cinq cent langues jëm kaw par exemple bu dee alquran tamit firi nañ ko lu ëpp trois cent cinquante langues jëm kaw nit ki pour nga am ci accès c'est pas trop compliqué donc li nga xamante ne ñëpp ko xam wala li nga ko waxee jurut tey jurut doy na waar loolu amaana jarul ki nga xamante ni du chercheur mu ciy sonnal boppam na xolle koo xamante ni maandu na wóolu na ko bu toog waaye par contre bu masala ñëwee boo xamante ni masala bi dafa jur coow il faut ñaari mbir am soit ki ko wax mu indi cëslaayam mu wax fan la ko jële te bu fekkee ne am na ba tey day amaat problème mooy est-ce que déggin bi wér ndax lu mel ni par exemple nit taxaw ne la ku julli sa biir kër amoo julli gaa ah, yéeme na di mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ndax yonent bi nee na la salaata li jaaril masjid illa fil masjid amul julli ki dend ak jàkka lu dul ci jàkk xam nga indil na la cëslaay mais loolu mu wax ak cëslaay dafa ñàkk a dégg cëslaay parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dèjà wax ne ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura man suuf si yëpp yàlla jëlal na ma ko defal ma ko jàkka bu sell bu laaf bu nit ñi mën a jullee beneen bi aussi yonent bi sallallahu wax na ne julli ci mbooloo moo yow kenn ci ñaar fukk déggee ci ne julli yow kenn mooy sa kër ak yeneen bi yoo xam ne ay adilla yu bëri mais juste dama bëggoon a wane rek ne nit ki dina wax dara indi dalil fekk dalil bi ci boppam wéru pour wéral li mu wax manam dalil bi wér na bi sallallahu alayhi wasallam moko wax wala alquran la waye dalil bi du pour wéral mom li mu wax je pense que comprendre nañ li ma donc bu fekke ne mom indi na ci slide fa lillahi alhamdu dañuy delu ñu réviser ci slide bu fekke ne indi wuko nak indi bala ñu ci polémique dañu wara dem xoli est ce que limu wax ni amna lu koy deugal bu amul lu koy deugal wala sax li ñëk xol moy est ce que amna lu koy weddi bu amé lu koy weddi te texte bi lèr dañuy jël waxam di teg ko na ni fekkee ne nag amul lu koy wecc waaye gisuñu tamit lu koy saxal boobaa dañuy jël wax ji ba tey tegee ko ko ci kon bokk na ci meloog wootekat jëm ci yàlla mooy bu fekkee ne alquran la ak xadis ak fiqh li moom daf kaa war a moom yaani laa budda an yakuna faqihan la moindre des choses moom mooy il faut mu dégg fiqh il faut mu dégg fiqh léegi nag diine dafa yaatu dafa am ay branches yu bëri dafa mel ni ni ngay ñëwee ne kii nii scientifique la kii mathématicien la kii médecin la kii ku nekk rek li nga jàng diine tamit noonu la dafa am koo xamante ni kii usul yi kii balaaga yi kii mantiq la jàng kii tafsir la jàng kii xadis la jàng kii mustala ay mun xadis la jàng kii ku ci nekk li nga jàng donc nit ki mënul ñëw tamit bañ a def déjà taxasus ci benn fànn ba pare bëgg ne moo ci raw ñëpp te kenn aussi munoo nekk ku def taxasus bi moo leen far ni mun nekk nii ngay ñëwee ci tariqa par exemple nga nga gis ay ijaza xam ne dañuy jox ijaza luy luy montré que ne diw am na droit wu def nangam islam tamit c'est la même chose ku mokkal alquran lañ lay jox ijaza quraniya ñu xam ne kii wattu na alquran mais tey jii ñu bëri sax mënuñoo comprendre ku mokkal alquran mun kaa tari ak ki na mokkal naka noonu mënuñoo def euh, différence entre ki maîtriser alquran ba nga xamante ne aaya ba mu bëgg indi daf koy indi facilement ak ki dégg alquran bi bokkuñu nit ki mën na mën naa fekk mënu laa jox benn aaya mais fekk li mu lay wax yëpp alquran la li mu lay wax yëpp xadis la kooku boroom xam-xam la mais maîtriser wul source yi ñuy delluwee ci alquran kon li ñu bëggoon wax xam naa ne dinañ passé minutes yi ñu ko bëggoon a tënkee waaye li ñu bëggoon wax rek mooy nit ki avant tout dañoo war a xool ndax il est apte ndax apte na bu ma la sa affaire jikko yooyu moom c'est la c'est la base c'est la moindre des choses يلا تبارك وتعالى قولوا قلت لنا ينتمي صلى الله عليه وسلم كوكاي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ووتل تسا يون بروم وايك سجس اك اك اك بيان فيانس موي ووتل بو رافيت ووتل بو مخمنتي لي كان دو تي خيب تي كوتي جيك لك ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله يلا نيا نتبي صلى الله عليه وسلم بو فيكون لا نيك بو خات بو لا فايانتو kon kenn du kenn du luñ la wër day fekk ne xat nga ci ñoom ba ñu dem bàyyi waaye nag na nga leen jéggal na nga leen jëndal te na nga diisoo ñoom ci mbir yi yooyu yëpp ay jikko la loolu côté jikko waaye côté xam-xam bi moom léegi borom xam-xam di wax ne lawlal isnaadu la qaala man shaaha ma shaaha bu dul woon cëslaay wéeruwaay delluwaay li gars yi wax source moo koy dégg naan la source bi lan la bu dul woon source boobu noonu ku mu neex rek wax lu la neex waaye maa nga sax Sénégal ñëpp. nekk nañ ay borom xam-xam ñëpp xam nañ diine ba ku ci nekk rek ñu ngi ciy wax fekk nag ku ci nekk am na wax yu muy wax boo ko delloo woon ci ay masala wala nga laaj ko fan la jëlee waxam diine du loo ko indi kon nit ki laa wax buy jël ci diineem na xool ci kan la koy jël na xool bu baax ci ki koy jël nii déjà est-ce que ku apte la maanaam am xam-xamu diine la réellement ñan ñoo ko seede ci moom kan moo ko jàngal fu mu jàngee si la foofu bu fekkee ne ci moom nga nar a xam-xam jàngal li jëntil ay mbiram ba xam kii kan la xool dëgëreem ci maanu ci beneen bi nag mooy xoolal lim lay wax ndax muy feeñ ci bu dee koo xam ne personnellement di nga mën a xam ndax moom lay jëf bu dee nekkul koo xam personnel personnellement aussi lépp lu mu la wax nga dem xooli delluwaay bi nga xamante ne moom mooy alquran ak sunna ak waxu boroom xam yi nga xamante ni ñu maandu bu dëppoo wut ak loolu même bu dee sa baay bi la jur même bu dee sa bi nga jokk ci moom jëlal wax ji nga teg ko nii ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla euh, sàmmal suñu diine may ñu xam-xam te may ñu ragal yàlla may ñu tamit njëriñu xam-xam mooy jikko bu rafet ak ragal yàlla te musal ñu ci musibaay xam-xam mooy lan mooy rëy ak bukkale yàlla ci yàlla musal bi daahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alhamdu awal daawana wa axiruha walhamdulillahi min xiinin ila إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله